ملكت ببل الله ما كان يسار rahmaani rahiim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk yi nga xamante ni yéen a safoo di seetaan seen télévision Mafatihoul Bichri TV télévision bi nga xamante ni moo jox comme Xaadimul Mustafa ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu àq di leen baalu àq di leen wax ne faat nañ ko ñu ko defee woon daaw. kuy waajal ngan gi nga xamante ni sëñ Mame Mor Mbacke da koy amal fii ci New York City ñi ka ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite liggéey bi yëpp moo xam laxasaay moo xam aussi takk ndig ren ngeen gis ne ndawi Sëñ Tuubaa yi daaw tamit lañ ko créé woon waaye ren tamit def nañ ci liggéey ba am solo ñëpp daal di pare nga xamante ni moom moo di eh, nganuk sëñ Mame bi Mbacke gi nga xamante da koy amal fii ci New York City Euh, jamono ji nag ñu ngi fii jublu euh, nga xamante ni moom JFK euh, di ko atlet képp ku nga xamante ni tamit taalibe nga ak fépp foo mën di nekk ci biir dëkk bi lépp yaa ngi koy waaj di leen wax tële la ci New York moom nañ ko jàpp ci ñaar fukki fan juróom ñett ci weer bii ñu nekk lañ ko jàpp fële nga xamante ni moom moo di ca 116 ba ca 125 ba comme incha allah rabbi dara du leen ci ump ci seen télévision ma fàtte ko ci TV fii ngeen ngeen di gis ni ci image yi moom mooy GFP donc ni di uh, groupe bu nga xamante ni itam uh, saa su ne sëñ Mamour fii la ñu koy uh, fekk si daal di koy ànd ak jël si ko teeru ko dalal ko daf ko yóbbu fi nga xamante ni aussi fa la ñuy jëm kon ñi nga xamante ni rek yéen a ngi safoo seen seen télévision Fatou Bichri TV télévision bi jox léppam gi dara du leen itam ba ca bis ba lépp ay direct la ak ay plateau yu am am solo yoo ni euh, ki ñu ko jëlal rek moom mooy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim euh, Rasul kon di leen jox bi daje ci kanam tuuti rek euh, fekk sëñ bi yegg si dalal gan yi am ak ñoom ay waxtaan foofule ca JFK. aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi a rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tasliman Euh, mbokk yi ànd ak ñun ci télévision ba Fatihou Bichri TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar fépp fu taalibe mën a nekk ci àdduna bi di ñu bàyyi xel ñi leen di màggal bu baax a baax. Ah, di leen dalal fii ci eh, JFK xam ngeen ne daaw bu ngeen ko ci waxtu wile ah, daje woon nañu fii eh, ngir ànd ak yéen ci ngan gi nga xamante ni moom la eh, Serigne Mamor Mbacké di amal fii ci États-Unis d'Amérique ah, Serigne Mamor nag ba mu ko dalee def ak léegi yàgg na loolu waaye xam ngeen ne ngan gi ren lay tombé trentième édition ñu koy def daaw ci jamono bi andoon ngeen ak ma Fatima Bichri TV ñu demal leen fépp daanaka ci état yi nga xamante ni sëñ bi ma nga woon moo xam Canada Washington Baltimore ak yeneen dëkk yëpp ren tamit it bu ci euh, kàttanu yàlla ak mbaaxam noonu lañ ko euh, fas yéene euh, defee wan leen marche bi nga xamante ni moom mooy am ci États-Unis d'Amérique fii ñu nekk nag mbokki ànd ñun moom mooy di JFK fii la sëñ bi war a wàcc saafante ak taalibe yi su noppee ñu daal di koy doogal yóbbu ci kër gi nga xamante ni foofu la ko bika dalalee ren euh, li ci euh, am solo mbokk yi ànd ñun moom mooy que ne xam ngeen ne euh, kuréel yu mag yi nga xamante ñoo ne ci biir New York moo xam Mika moo xam Laxasaay moo xam takk ndigg NST di ndaw yi Serigne Touba yi nga xamante ni ki ñi daaw lañu ko créé woon ñoom ñëpp rek pare nañu li nga xamante ni euh, moom moo di euh, Bamba Day bi euh, le 28 itam bu ñu ci yeggee incha allah rabbi daañu leen amal ay direct wan leen zone bi yëpp li nga xamante ni noonu la ñu ko fas yéenee màggale ni ren moom mooy trentième édition ñu koy màggal ginnaaw bi nga xamante ni Serigne Moutala Mbacke daan ko def ki noonu itam sëñ Mamour eh, di ko def ci New York noonu loo koy defee eh, ca itali boo demee boo demee ca Espagne moo xam France fépp rek fu nga xamante nii rek eh, taalibe yi ñaga fa noonu lañu koy fas yéene defee mbokk yi ànd ak ñun seen télévision ba Fatou Bichri TV ànd fii ak yéen fii ci JFK bàyyi góor ak bàcc fas yéene ànd ak yéen ci teertu bi incha allah rabbi dara du leen ëmb ak seen télévision ba Fatou Bichri TV su ko defee rek mbokk yi ànd ak ñun ñu daal di dugg ci biir fas yéene saafante ak taalibe yi مرجم لله ما كان يسار allah kon mbokk yi ni ñu ko waxee woon sànq rek ñu ngi fii euh, ba léegi ci euh, terminal 5 seeni ànd ak yéen ci accueil bi nga xamante ni moom la ñu war a jublu léegi ci kanam euh, di xaarandi bu baax a baax sëñ Mamour Mbacke mais laata loolu ñu ngi nekk ak sëñ Xaadim Bousso mi nga xamante ni moom mooy imam ratib bu New York saa bu programme yi ni amee itam moom itamit lépp lu nga xamante ni rek dana ko ci def ngir lépp ngir li nga xamante ni moom mooy taalibe yi waaye itam ngir li nga xamante ni aussi moom mooy sas bi nga xamante ni moom lañ ko sas mu nekk fii ci New donc euh, imam ginnaaw bi ñu la nuyoo ziar la ñi ngi waajal ngan gi rawatina sëñ bi ñu koy xaar naka lañ lan lañ mën a gën a jàppagul fi mu toll nii ahousubillahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al ambiya al mursalin sayidina muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi ajmain euh, suñ bàcc ñu ngi la nuyu bu baax a baax di la ziar di nuyu suñ góor a murit di nuyu waa Bichri TV yëpp di sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant yàlla mi nga xam te ne moo ñu taw féexal ñu fekkee waat Bamba Day bi di xaar suñu gan gu tedd gi sëriñ Mamor Mbacke Moutada alxalifa euh, di ko ñaanal mu agsi ak jàmm alhamdulilah agsi na ak jàmm mi ngi Washington DC euh, fa la war a jógee ñëw fii ci New York euh, moom lañuy xaar nii ci aéroport bi incha allah tabaraka wa gis nga taalibe yi ñoom ñëpp ñu ngi nii toog di ko xaar ànd ak discipline bu mat sëkk ànd ak yar mag yi daayira bi yëpp ñu ngi nii. ko gis suñu Abdou Gueye xam ne mag ñëpp a ngi fi eh, suñu Cheikh Mbuuba ak ñoom ñu ngi nii ñëpp daal ñu ngi fas yéene ak ndaw ñi ñu ngi xaar ndaw yi suñu Tuubaa yi ñu ngi xaar waa Laxasaay ñu ngi xaar ñëpp ngir ñëw ànd ak ñun eh, bis bi nga xam te ni ci bis yi gën a màgg la bokk ndax mën naa ne bis bi mooy bis bi Serigne tubaa jagleel waa diaspora bi ndax Amérique mooy dëkk bi ëpp ci eh, ci àddina bi New York mooy ville bi gën a rëy ci àddina bi kon mooy fi ëpp ay moodu ay taalibe Serigne Touba kon yaakaar naa bis bi mooy bis bi gën a màgg suñ bis yi ñun kon ni ngi koy xaar incha allah vol bi moo xaw a tardé tuuti xam naa une heure six lay agsi léegi ñu ngi jàppoon ni sax midi lay agsi waaye léegi une heure six lay agsi incha allah bu ñëwee nag ak jàmm nag ñu ànd ak moom euh, tatagal ko dalal ko yaa a xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi jàng suñuy xasiida jàng alquran xaar ko ànd ak moom bu ñëwee nag li muy njëkk def comme ni ko ñoom seen duggee xamee mooy dem visité kër Sëriñ Tuubaa gi nga xam te ni bokk na ci symbole yi gën a rëy ci Amérique muy kër Sëñ Tuubaa gi nekk Arlem tam nekk ci sànce dem mm-hmm. visité ko boo ko visité pare nag doog a dem noppalu ji bu nopp lu jee suba suba gi nag euh, incha allah la ziyaar yi di commencé mm-hmm. bu soobee yàlla incha allah lii daal mooy li nga xam te ne nii moom lañ fi euh, ci lañ nekkagul fi ne nii jamono ñu toll nii mm-hmm. euh, xam naa bu kiyee suñu Abdou Guèye dana gën a mën a leeral lu bari bari incha allah Euh, euh, sama ñaareelu euh, question rek imam moom mooy solos solos marche Bamba Day bi sànq maa ngi koy wax ci ubbi gi ren la ñuy def fanweeri fanweeri yoon boobaak li mu ko tàmbalee mais ñëwaatal ñu tuuti rek ci solos marche bi. waaw xam nga marche muy dox di woo ci turu yàlla dafa yàgg ci lislaam ndax boo seetloo Seydina Omar radiyallahu anhu keroog ba ko bam mu tuubsee dugg ci lislaam tax biñ daan noddee di ko nëbbu da koo toj. daani yonente bi alayhi salaam bu fekkee ñun ñoo ne ci dëgg ñoom ñu ne ci ak neen nañ génn di wax laa ilaaha illa ñëpp dañu dégg yonente bi ni ko acca bisimilah ñu ànd def ñaari sàppe Seydina Omar taxaw ci benn sàppe Seydina Ousmane taxaw ci benn sàppe ñu wax laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah loola moo moo ak siwaat nii waaye li ko gën a symboliser mooy li Sëñ Tuubaa wax rek inni uxaatibu nasara turan mu xaataba ci langue arabe mooy nga jàkkaarloog nit di waxanteeg moom di wax di wax di ko jox mu lay déglu kooku mooy xutba moo tax imaam bi xutba taxaw ci kaw minbar bi jàkkaarloo nit ñi di xutba loolu la ñu tuddee mu xaataba mu xaataba mooy inni u xaatibu u xaatibu ci xutba la jóge mooy maa ngi jàkkaarloo ak ñoom di wax ak ñoom loolu la mooy lii taalibe yi di def taxaw ci digg mbeddi Harlem yi taxaw ci digg mbeddi Manhattan yi taxaw ci digg mbeddi New York yi di wax laa ilaha illallah waaye xam nga symbolisation bi muy bi ci ëpp solo mooy euh, yaakaar naa depuis 11 septembre boo nekkee ci avion boo bébulee boo ne alham boo tislee boo ne alhamdulilah sax wala dara war nga ne allahu akbar sax ñu taxawal avion bi. Mhm. ñëpp génn parce que baat boobu baatu baatu xeex la ci ñoom. léegi kon suñu demee ba baat boobu ñun ñuy jël laa ilaaha laa di ko wax ci mbedd yi di dox di ko wëree di wax police ñu escorté kooku am na lu muy lu rëy a rëy lu muy symboliser ci lislaam mhm. mooy wane nekkati kat lislaam fa mu nekkoon ba muy doog a commencé nga xam jàmm rek la doon da wax asalaamaaleykum daan ne ko yàlla yàlla may jàmm. yàlla na yàlla musal ci sama ay loolu noonu Sëñ Tuubaa lool la ñuy jàngal muy culture jàmm ak baale loolu la ci la taalibe yi nekk boo gisee li tax ñu may leen loolu police New York di leen escorté ànd ak ñoom ñuy wax laa ilaaha illa Muhammad rasulullah mooy ñoom taalibe yi seen discipline ak seenub yar bi ñu nekkee ci dëkk bi moo leen may loolu ndax bu ñu fi nekkee woon naneen tey jii duñ leen may loolu ndax ñu bari ñu ngi fi ci amuñ ko kon am gi ko am kon lu am solo la kon ñu mën koo téye kon téye nañ ko téye bu rafet muy mag ñi jiitu nañ gone yi topp ci mag ñaa ngi leen di laabire di leen tatagal gone yi tamit ñu ngi dégg ñu ngi góorgóorlu am naa ay xalaat chage ay mbir yu néew yoo xam exception la mhm. ay exception la exception kenn du ci natt règle boo boobu am na exception waaye li am solo daal mooy mag ñi ñi ngi tegu ci aw yoon ndaw ñi topp ci seen ginnaaw di góor góorlu bu baax a baax a baax ndax lu mën a xew rek saa yu Sëñ Tuubaa wootee mu fees dell te loolu li muy firndeel mooy kon ñi ngi ci ñi ngi ci yoon wax ca it damay wax ni maanaam bitim réew ni ñuy pratiquer l'islam ak ñi ñuy pratiquer diine te ni moodu bu ci julli jullit ajuma raw rek day tiit sax jàpp ni moom musiba la su sëñ bi wootee am njàng sax bu ko tardee day jàpp ni moom def na musiba loolu yaakaar naa bu fekkoon waa Sénégal roy nañ ci loolu sax dañ mën a gën a avancé bu baax a baax kon laa ilaaha illa Muhammadu rasulullah ji ñuy wax kon ñi ngi koy wax ci seenu làmmiñ waaye ñi ngi koy pratique tamit ci seeni cër ndax lislaam wax la ak pratique ak pas-pas loolu nag wax dëgg yàlla li ma gis fii euh, tawféex la boo xam te ne suñu borom euh, liggéeyub suñ Tuubaa ba màcc na fii bu baax a baax a baax am na solo waaw moo kooku mooy euh, imaam Xaadim euh, Bousso xam ngeen ni euh, ci koor gi moo ñu doon defal tafsir bi waaye itam lépp nga xamante ni programme la jëm ci wàllu dëkk bi tamit da ciy taxaw taxawaay bu am am solo donc loolu tam ñu ngi ko ci gërëm bu baax dinaa tàggoog yow mais ci dernière question dañuy gis ne si mbitam bu dikkee ak coono yi li muy bëri yëpp maanaam daal coono gi moom du ko yëg ak état yi mu a dem yéeg moo xam liggéey ak nit ñi ni ñuy dikkee ci moom coono googu noonu lan la waaw xam nga loolu da nga koy nett suñ Murtala radiyallahu anhu ah. mu am juróom-ñett fukki at di magum lislaam waaye fu mu toll rek buñ ko musaa wax sax sëñ bi dangay ngay doo noppalu daan leen ah. kenn kenn nit dugg ci lislaam rek jaral na ma daggee bi ñëw ba fii mhm. loolu la daa wax nga xam ni lislaam kenn du ci sonn ñoom li tax duñ sonn ci loolu muy suñu màmmoor ñoom ak gaa yu baax yi yëpp mooy seeni cër dafa làgg ci jaamu yàlla sa si yàlla bu la tàggatee ba sa cër làgg ci jaamu yàlla rek jeex na nga gis koo xam te ni magum magum magum magum juróom-ñett fukki at la taxaw di di naafi la guddi di góor góorgóorlu di dox di def lu baax di ko wax di sonn guddi nga jàpp ne dafa sonn nga ko yërëm fekk sonnut mhm. kay sonn mooy nga xam ay cëram laggewuñ ci nga ne moom fu mu toll ma ngay nekk ci ay caaxaan ma nga nekk ci lu bon xam boo ko a julliloo benn waxtu sax day am problème pour julli kooku ay cëram da cee laggewuñ moo tax mhm. waaye ñoom seen i cër da cee laggi suñu maam Mor dañ koo toq toqantal ci lii ndax moom la xam mhm. da wax sax moom nee na musta am jot musta am jot musta musta musta bëgg dara loolu rek yoon wi mu nekk mu ne ci ndax baayam xamoon na ni eh, mission bi moo koy mujjee moo tax mu tàggat ko ci bu baax a baax a baax moo tax bu ñëwee sax moo tax du sonn fu mu toll mi ngi eh, ñu ngi koy mi ngi toog mu ngi ñàqtooy xib. Mhm. di góor du nelaw daanaka. da ngay gis ni maam bu ñu nee suba la Bamba day bi ci guddi googu. dangay toog di waxtaan moom ba 3 heures du matin nga xam ne yow da ngay mujj di jeexu moom day mujj jóg nga jàpp ndey te dem mu àggale ay lawraadam defi naafilaam ba pare daanaka une heure tax lay nelaw te bu xëyee fas yéene defaat ay discours am ba ngoon jot kooku yaakaar naa tamit taalibe yi war nañoo amaat tamit euh, ak jàjju ci loolu. Mhm. xam ni ginnaaw sëñ bi moo mooy daj lii mooy coon sonn coono yi ñoom it war nañoo gën a góorgóorlu bu baax a baax te loolu it ci Sëñ Tuubaa rek koy lañ koy lañ koy jëlee ndax sëriñ bi radiyallaahu anhu euh, mag ñi lañ daay yéem ab coonaam mu am na bis muy waxtaan ci natt yi ak métti gu métti woon euh, mag ñi di ko yéem di ko yéem yéem yu méttee méttee métti mun leen waaye jëru di yéem ndax bu fekkoon loolu amul tëj du ngeen noppalu kon loola moo fi nekk rek kon ñu euh, loolu moo waral muy sonn nii waaye nekkut ab coono ci moom ndax liggéeyal yàlla la liggéeyal yonente bi la liggéeyal seexul xadim la radiyallahu anhu macha allah macha allah di ko gërëm bu baax a baax moom euh, imaam Xaadim Bousso yaakaar naa ni wax na lu amam solo jëmale ko euh, ci sëñ euh, Mamour waaye itam ci taxawaay bi bis bi nga xamante ni moom mooy Bamba bi ba léegi rek ci ouverture bi nga xamante ni moom la ñuy amal yéen ngi toog ak suñu Abdou suñu Abdou Guèye nga xamante ni moom itam macha allah kenn doo dootu ko présenté ci ginnaaw Mika waaye itam wàllum accueil bi gis nañu toujours saa bu ñu dikkee rek mbooloo bi day gën di yokk. waaye itam taalibe yi am nañ ci rôle bu am solo sëñ Abdou. Ah, jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ah, ñu ngi lay nuyu bu baax ak góoru murit ah, fii imam Baye rek laay tàmbalee waaye ki nga doon laaj léegi rek boo ko laajee waxal na Amérique yëpp muy sunu imaamu ratif di imaam xaadim Bousso ci xam-xam bu rafet ba muy docteur imaam xaadim Bousso xam-xam bu rafet ba ak yar ba ak teggin ba ñu nekk ak moom ci dëkk bi nga xam ni sunuy nawle lañ fi nekkal këri diine ñëpp naw nu ndax xale la waaye itam am na cërum mag ndax luy cërum mag mooy am xam-xam am yar xam na koy waxe am ay teggin jox ñëpp cër mm-hmm. kon nag ni nga ko interview léegi di ko laaj loolu mu la wax alxuraan la ju tege joo xam ne ndax dund na ko kuy sa maam sëñ bu Buso ah kooku nga xam ni sëñ Touba koo defoon muy léppam ci alxuraan yàlla dimbali nu ba muy sunu imaam nekk fii ci Amérique di yor xam-xam bu rafet nga laaj ko mu wax lii mu wax ñu ngi koy ñaanal yal na yàlla guddalu fanam. yàlla yokk xam-xamam yokk xéewalam. li ma laaj nag sawar naa ci lool. ndax uh, welcome bii di accueil yor nañ ko lu yàgg loo xam ne lii. wax dëgg yàlla ñoo ngi ko àndandoo ak i nit ba nga xam ni ca seex Cheikh Mamadou Mourtala ba ndëgëni ba doomam ji di Cheikh euh, Mamor Mbacke ñëw di dox jéegoom yooyee teg ko ci yoonu siraatal mustaqim àndandoo ko jullit yëpp rawatina noonu murit yi nekk Amérique fii yàgg nañ fee toog di teeru Cheikh Mamadou Mourtala ba ci sëñ Mamor Mbacke mii ñu àndandoo ko nag bis bu ne ñun li ma koy waxee rek yar ak teggi ndax ak accueil mooy teeru gan dalal ko te gan loolu dara ëpp ko ci ab cër soo koy def la nga war a am mooy ubbi sa kanam leeral ko yaatal ko oyofal ko ba ku la gis ñime la nga mën koo dalal teral ko te sëñ Tuubaa yaakaar naa ni loolu la santaane yar ak teggin ñi ma ko àndal ñëpp nag duma ma lim seeni tur ndax xamees na leen ndax ñëpp ci la yow mi ci nga ñii ci la ndax ñun ñëpp ñooy bokk teeru gan yi day day njiit mënta ñàkk rek waaye lii ñu yàgg ko def fi nga xam ni mooy jefkee ah ñu ngi nekk sëñ Mamor. ñu ko imaam waxee léegi rek yaakaar naa ne une lay ñëw boo gisee kilifay daayira yëpp a ngi fi mag ñaa ngi fi alaaj Cheikh Mbouba ngi sama wet bokk ci jëwriñ ya nga xam ne ci fondateur yi waa Kër Sëñ Tuubaa la bokk mhm. ca Brooklyn ba nëgëni mhm. Cheikh Kananga na lee toog mhm. ak président yi daayira yu bari ñëpp a ngi nii toog fii ñu àndandoo ko ak daayira Maam Jaara waa culture it ñëpp a ngi ne laxasaay woon nañ ma léegi ne ñu ngi ci yoon wi. boo ko gisee noonu ñu koy doxalee. loolu royuwaay la boo xam ne bu rëy la. ñu ko fas yéene nag ñëw teer ko jànkati xasaayit yaakaar naa ni léegi ñu agsi ñoom Pape Kane ma jaara boo xoolee lii góor a wax daayira maam jaara ngi noonu door a agsi euh, nañ ko daan defee lañ ko fas yéene defee bu dikkee ñu teeru ko dalal ko fas yéene présenté ko nit ñi. mu nuyoo ñoom ci aéroport bi muy góor ak jigéen ak xale yeeg mag ndaw ñu ànd dem ca santé ba ca kër sañ Tuubaa suñ fa jógee nag yóbbu ko mu dal ca hôtelam ba suba te buñ julee tàkkusaan ba pare ca la ñu koy defal siyaaru général fa la ñuy jullee ajjuma ca cent trente et ba ak it awani ñu defal ko siyaare li commencé cinq heures ba dix heures bokk nañ ko nag këru diine yëpp tey ren euh, ngan gi lu bari sens na ci ndax yaakaar naa ne Sénégal kilifa ya fa nekk yëpp. tey jii ñu bari dee ngeen leen gis fii muy kilifay aada ya ak kilifay diine yi. ak ñi nga xam ne ñoo jóge tey jii ci diaspora bi. ñëpp dee ñëw ci Nations Unies. ndax Nations Unies. day loo xam ni na UNESCO meloon UNESCO. nga xam ni booba UNESCO lañ tudd waaye lii Nations Unies àdduna bépp ko bokk. Cheikh Mamadou Mourtala di dox tànkam yooya ba ñu am bis boobu ñu décréter ko ko euh, fi nga xam ne mooy cité New jox ko ko ci jamonoy yi euh, euh, maire Dinkane lañ ko ko décréter jox ko ko muy loo xam ni chaque julaay tooni it bu nekk dina na ko am ba kër at nay tukki kon nag loolu cër bu rëy la boo xam ni liggéey lislaam rek moo ko mën a maye. Mm-hmm. loolu nag ñu ngi koy ànd ak waa état yëpp buñ jógee fii moom sëñ Maam Moor dina wër ne ko daan defee dem ci état yi dellu si waat fekkaat na fii. ba tàggatoo ba waaye nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm. ndax lii rek mooy àdduna. liggéey bi rafet na wax dëgg yàlla boole ngeen ko ak yar ak teggin waa laxasaa it daanaka ñu ngi ñëw te ñooy itam jàmbaar lañu ci liggéey bi ku ne xam na leen li ñuy liggéeyal sëñ tubaa ànd ko ak waa sécurité suñ ñëwee lépp luñ ci war a doxal fii dañ ko fi doxal ci yar ak teggin ba yóbbu ko fa muy dal asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu macha allah Ah, mbokk yi comme ni ñu ko euh, euh, continuer ba léegi ci euh, Bamba Day bi nga xamante ni ñu ngi fii ci jeef JFK di xaar ki nga xamante ni mooy suñu Mamor ñu nekk ak Baye Cheikh Mboup nga xamante ni itam kenn dootu ko présenté ci kër Sëriñ Tuubaa gi rawatina Brooklyn ba New York mu nekk liggéey bu nga xamante ni liggéey boo yàgg a fekk la macha allah. ren ñuy waajalaat Bamba Day bi di dalal suñu gan ko nga xamante ni ku dëkk bi miin la loolu muy suñu Mamor Mbacke lan lañ mën a jàpp ci tënk. Euh, euh, Baye Cheikh nga wax ñu rek li nga xamante ni moom mooy programme bi ak euh, accueil bi tey ji nan lay demee incha allah. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulilah rabil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki jullit yi bokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen siyaare den ba laq den ba laq yàlla nu yàlla bool jéggal li nga wax lu rafet la et lu lu neex a wax la mhm. li si nga Abdou Gueye wax rek doy na sëkk nen kenn mun a lu ko waaw ku waxee da ngay répété rek waaye nag gannaaw ndigal la e ñu wax ci lu ñu xam maanaam fanweeri at du fanweeri bés sëñ maam Mourtala li ñu fi tàmbalee ñëw 88 la fi jëkk a ñëw ak léegi 30 la léegi 30 ans bokkul ak 30 jours te 30 yooyu yëpp lu ca toppati ce ca ca at mu njëkk ma 88 ba léegi at mu gët dafi daan ñëw ba yàlla tam wàccu liggéey su fa saan ñëw day mel ni tey jii la gën a bees nit ñi duñ doyal ci moom duñu duñu doyal ci moom guddeeg bëccëg di ko mm-hmm. siyaare di ko di ko toppatoo ngir lim bokk Serigne tubaa ak li mu liggéeyal yonent bi te itam def ko ci diaspora bi ñëpp gis ko ba yàllaa mu wàcc liggéey itam sëñ Mamour Mbacke jël place ci ndigal ñëw di ko dox ba ci suñu joon tey jii mu toll tey ñaar fukki at yu manqué euh, juróom-ñett yoo xam ni tegal na ay weer sëñ Mamour dafi ñëw xam nañ ko bu baax min nañ ko as góor la ab jullit la ko ànd ak teggin la ànd ak ànd ak ànd ak discipline ak diplomatie ak ndigal ba mu départ dong la nekk ndigal ba suñu jontee ji mhm. kon ku fi ñëw di ko teeru ndigal nga fi war a ñëwee ndax sëñ Mamour Moussa wàcc ndigal ci ndigal la nekk nii loolu mat ñaar fukki at ak ñett yu tegal mhm. ñun ñii ko teeru itam ba bëccëg bu ñëwee sax dañuy jaaxal ndax ñun dañuy gën a yaru gën ñoo am teggin gën ñoo discipliné gën ñoo gën gën ñoo euh, bañ a euh, kon nag de kooku gan la goo xam ne ku ko am ci àdduna war ko toppatoo te yaay te roy ci moom te yaakaar ci moom. moom nag euh, nit la goo xam te ne kii ku simple la képp ku jublu ci yàlla ak yonent bi ak sëñ daal moom bàyyam koy doon képp ku ci jublu nag moom woon na la gannaaw waaw noonu la mel. waaye sëñ Maam nit ku yiw la ku baax la. te itam teeru bi ngay wax. ni ko nit ñi bëggee di soññee jël sax ñuy sonn jullit yi ñoom ñoo bëgg sëñ Maam soo bëggee yàlla bëgg yont bi di liggéeyal yàlla di liggéeyal yont di taalibu sëñ Tuubaa bëgg ko nit ñi duñ duñ la gëmee loolu moo ne ci Mamor ñu ñi gëmewuñ ko guddeeg bëccëg dañ koy soxla di ko namb di ko yàkkamti ngan gi ngan gi mooy dax gi weesu wan ngan gu ñëwati mu dax gi fi ñëwoon na leen jàmm rek ci xew góor ñi jigéen ñi mobilisé nañu ak maa ngi yeeg taalibe yi ñëpp parce que yéen a teeru teral ko te itam màggal ko teg ko ci kaw sëñ Mamoor yàlla na ñëw ak jàmm ak salaam fekk ñu fi jàmm ak salaam yàlla may luñ ko terale ci barke seen Tuubaa jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf macha allah dag ñun di ñu seetaan ci Mafatihul Bichri sëñ Mamoor Mbàkke mi ngi noonu yegsi na ci aéroport international JFK euh, mi ngi noonu nag di nuyoo ak ki nga xamante ni moo yore sànq ba tey sécurité bi euh, euh, la yor sànq ba tey noppalukul benn yoon sëñ Mamoor Mbàkke yegsi fii ci terminal 5 ci aéroport international bu John Kennedy gis ngeen waa laxasaay sama baay Abdou Diop noonu di escorté euh, sëñ bi ngir mu daal di euh, nuyoo ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di euh, kilifa yi ginnaaw bi mu saafante ak ki nga xamante ni moo yore wàllu sécurité bi ba noonu mi ngi noonu di nuyu imam Khadim Bousso xam nga ne moom itamit macha allah liggéey ba am solo lay def ci New York ni ngi noonu itam président bu Mika lay nuyoonte noonu moom itamit macha allah biñ ko joxee kilifteef gi mu jiite ko ba léegi mi ngi ciy liggéey. liggéey euh, bu am am solo loolu tamit ñu ngi ko ci ñaanal bu bu baax a baax euh, sëriñ Moutala Amar gis ngeen ko noonu tamit ca pegg ba moom tamit macha allah ci yoon wi muy def liggéey bu am solo euh, sëñ Abdou Diop di escorté sëñ bi la ñuy amal li nga xamante ni moom moo di Bamba Day édition 2018 fii ci États-Unis d'Amérique nu ñu koy amalee itam ci fépp fu nga xamante ni rek état la ci biir réew mi sëñ Mamour ngi noonu ak leeraay gi macha allah sëñ Mamour Mbacke ibnu sëriñ Moutala mi ngi noonu noonu yegg si euh, sànq fii ci aéroport international bu ci mu euh, nuyoo ak di nga xamante ñoom ñoo di taaliba yi bàyyi ko euh, fu nekk yegg si ci accueil bi di nuyu ci ki nga xamante ni moom moo di taalibe yi. gis ngeen di itam di escorter sëñ bi lépp rek ngir ñu amal ko ci ni nga xamante ni noonu lañu ko bëggee woon. Euh, di leen fàttali euh, ba léegi ne euh, ñi ngi fii ci aéroport international bu JFK di Malick si mi ngi noonu di saafante ak ñoom ni ki noonu itam Baye Talla dégg nga leen sànq ak Daouda Sardaba ñi nga xamante ni euh, ci noonu euh, yaakaar naa ne euh, noonu lay saafanteeg ñi nga xamante ni ñooy waa kër El Hadj Malick Sy ñoom itamit macha allah seen taxawaay nekk lu nga xamante ni lu amam solo la ñi ngi noonu ba léegi di ànd ak yéen ci exib sëñ Mamor Mbacke ibnu Sëriñ Moutala fii ci aéroport international. bu euh, JFK lépp rek euh, fas yéene ànd ak yéen ci liggéeyu amado Amadou Bamba bi nga xamante ni euh, déjà liggéey bi fii la ñu koy tàmbali siñ bii ngi noonu di saafante ak ñoom ak sëñ Modou Samb moom mooy wax noonu ndeysaan dafa am àll nag sama papa ji sëñ Modou jógee Sénégal bu yàggul yegg si fii ci aéroport international bu JFK. Ah, soxna yi lay nuyu noonu soxna moom i seen a ngi noonu ci suuf ndeysaan euh, di euh, sukkal euh, ki nga xamante ni moom moo di sëñ bi ak délégation bi mu àndal ñoom soxna Kiné ah, ñoom soxna faat Samb ñoom itam macha allah di def liggéey bu amam solo ci daayira bi nga xamante ni mooy daayira Mame Diarra soxna Asou mi ngi noonu nekk tamit yaay Fall di liggéey liggéey bu amam solo ci côté soxna yi. ñu ngi noonu euh, soxna yi ba léegi di nuyoo ak ki nga xamante ni moom moo di euh, sëñ Mamor Mbacke gis ngeen ni euh, sëñ Mamor sëñ Khadim Bousso moom moo topp ci ginnaawam ak sëñ Fallou Diop ñi nga xamante ni moom moo di responsable bu mag foofulee ca kër sëñ Touba gi sëñ Mamor Mbacke noonu di nuyu ñi nga xamante ni ñoom moo di. Euh, soxna yi fii ci aéroport international bu JFK xasida yi yéen a ngi koy euh, dégg a a baax euh, loolu lépp fii la xewee ci aéroport bi mbokk yi am nañu ba léegi ñu leen di fàttali leen ne sëñ Mamo yegg na fii ci aéroport international bu JFK lépp rek ngir bis bi nga xamante ni moom la ñuy waajal muy Bamba de édition 2018 ñu ngi ko jàpp le 28 loolu nag en direct lay doon et en exclusivité ci seen télévision Mafat internetu Bichri TV sëñ bi di continuer di amal nu yooyu ndax gis ngeen taalibe yi xeer gi ñu xeer ci sëñ bi ndax bëgg ko bëgg gi ñu bëgg sëñ bi ak xadar gi nga xamante ni moom la ñu am ci sëñ bi loolee damay wane que ne ñoom am na euh, fu ñu euh, tek li nga xamante ni moom mooy seen mouridisme ndax itam bu ñu gisee sëñ bi dañuy tàggale ko Euh, seen seen sago loolee nag dañ koy dañ ko mën a comprendre ndax itam ku nekk ci ñoom bëgg naa jege sëñ bi ku nekk ci ñoom bëgg nga def sa liggéey ni nga ko waree waaye itam euh, ku nekk cofeel gi nga xamante ni moom lañu am ci sëñ bi moom moo waral loolu la bokk yi ànd ak ñun ba léegi dinañ fàttali ñu ngi ci aéroport international du JFK euh, fii ci aéroport bi fas yéene ànd ak yéen ci ngan gi sëriñu Mamour Mbacké di amal Euh, fii euh, ci euh, New York tey jii nag bu ñu ci pare xam ngeen ne accueil bi dañuy dafay continuer ci kër sëñ bi ak nu mu mënti mel lépp rek mooy waajal.